li ma doon. def te yàlla tax da ngeen ko pour weeru ramadan kese la wala day am continuité yu demee noonu ay carême bi dañuy def def te yàlla tax su ko weeru koor bi jeexee dañuy def ay don de sang ay reboisement y a d'autres choses quoi. waaw waaw waaw en fait bon euh, def te yàlla tax nag euh, c'est pas euh, juste pour les musulmans comprendre parce que euh, li koy wane mooy que ni si weeru koor bi karim bi passé euh, on a eu à collecter des des des dons. comme président ma président def ci je suis catholique. Ah, comprendre euh, voilà islamo-chrétien ni na. Ah, ah. te vu que tamit tol Dias da am ben brassage bu garaaw do xamé musulman do xamé chrétien donc loolu rek c' merveilleux. Mhm. té bon on a eu aussi à donner à faire un petit geste vis-à-vis des familles catholiques mhm. pour juste andi suñu soutien ci Pâques bi

à vrai dire nous sommes nous tax ñun sax ñun daf partenaire qui ñu. partenaire et ce que je vois derrière moi lolo. fortune la de fait quoi. Mhm. parce que tamit euh, Niki ki def ni tax war nga tout à fait. Euh, en fait genre euh, ça génère des coûts énormes. Mhm. ça génère des coûts énormes. ba bon appui bi mën wax ni suñuy wajur ñoo ñuy jàppale. parce que dañuy sollicité suñu waajur yi dañu sollicité aussi ñun suñu biir dañuy jënd ay t-shirt dañuy jënd ay lacoste dañuy defar ay carte de membre ci loolu nañu sukkaliku ngir mën a ndogu bu jagle ko jumaa yi jagle ko ndongo daara yi jagle ñoo xam ne doog danañ dab ci yoon. président maam lu ma la bëggoon laaj quoi parce que gaay dañ dañuy def ta yalla tax am na ñoo xam dañ koy def te defuñu yalla tax dañuy def ngir seen poche tax. noo gisee initiative gars di wax murmure boobu ñuy wax mm. dafa ñu yàlla tax dañuy def pour leur propre intérêt. Mm. waaw waaw en fait bon loolu noonu euh, man dama jàpp ne euh, nax sa bopp la parce que alalu mbooloo dafa nekk lu doy waar. li ma doon tey